salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di la wane welcome back si suñu daily news bi uh, tey Wednesday uh, si headline bi uh, gis nañ ne National Assembly dañ demand ne nañ ponis Jah Oil parce que dañ yaaxal luwaa bi gisaat nañ beneen headline bi National Assembly waxaat nañ ne ñu ne Office of the President na yi ñoo ñu explain affaire yi Banjul project Banjul seen yooni project boobu noonu. beneen headline bi gis nañ ne euh, NCP ñoom ñoo wax Dembo by force ak ñeneen ñi pour ñu dellu si si parti bi euh, gisaat nañ tamit de euh, food safety ñooñu wax nañ ne boo di gisee nit yi di leen criticize ñooñu xamuñ lan mooy ñoom seen liggéey li mooy headline si waaye balaa ñoo dugg si news comme ni ma leen di waxee saa su nekk please ngeen subscribe si suma YouTube channel bi Babou Kuyaté ngeen follow ma si TikTok bi euh, YouTube bi tamit soo bëggee dugga foofu noonu euh, su la neexee mun ngaa dem si TikTok profile bi fan la nekk di nga gis YouTube sign bi foofu waaye mu ngi black nga press ko rek nga dugga nga subscribe please ñu ngi ñaan na ku nekk mu subscribe because seen subscription bi daf ñoo help euh, National Assembly seen special committee bi nga xam ne ñoom ñoo dee audit wàllum government ak ñu ko wër ñoom ñoo wax ne tamit ñu ne Euh, oil company yu nekk euh, Gambia euh, ñu ngi def loo xam ne ànduta ak Petroleum Act bi 2016 ñoom wax nañ ne spécially Jah oil company Jah oil company dañ la war a fine ba su jaree sa ñu yóbbu leen court Euh, comité bi nii bu ndong bu bindee seen report bi nii wax nañ ne ñoom seen waxtaan ak euh, euh, member PURA yi ak seen management bi ñoom wax nañ ne de PURA ñu ne oil companies yi nii ba léegi ñu ngi samp seen station yi Ah, te fekk ah, ah, du dee jaar yoon te waxaat nañ tamit de ñu ne physical planning physical planning ñu ngi joxe ay permit pour ñi ñuy sampani te fekk pura satisfaction si seen paper yi gis nañ tamit ne the finance committee bi nga xam ne mu ngi national assembly ñoom ñoo wax ni office of the president ak minister of works infrastructure nagaay isi explanation boo xam ne dafa wone eh, eh, lu tax ñu joxe eh, contract bi nii to Guy Enterprise ah, soo leen bàyyi xel Guy Enterprise ah, ñoom lañ joxoon contract bi nga xam ne dem na si thirty five thousand seven hundred and ah, twenty two lii lañ joxoon Guy Enterprise 2019 according to auditor yi ñoom wax nañ ne ñu ne government dañ fail parce que euh, contract bi nii buñ ko doon jox Gai euh, Enterprise Gai Enterprise euh, defuñ benn study oo ñu def design boo xam ne oo bill boo xam ne dafa wone ne sa liggéey bi dafa mun a quality so auditor yi waxaat nañ tamit ne ñu ne contract bi nii buñ ko doon jox Gai Enterprise maanaam drainage design boobu noonu buñ ko doon jox Gai Enterprise gars yi enterprise eh, jo wane woon dara ah, ñoom lu luñ leen laajte yëpp ah, nine months after liggéey bi si lañ leen providal loolu noonu lii nekk na loo xam ne ñu ne ah, eh, dégg ne tamit ne gars yi enterprise ñoom buñ leen jox contract bi nii fekk ñoom amoon dara dara dara si xaalis te normally yi danga war a am xaalis boo xam ne dafa wane ne liggéey bii nii mun nga koo def te doo si am benn problème Ah, beneen news bi gisaat nañ tamit ne NCP seen leader bi di Aboubacar ah, Kinte Boubacar Kinte moom moo wax ne ah, mu ne Dembo Baye Force Bojang moo nekk advisor to the president of the Gambia kooku ak Keme Seng Jammeh kooku mu ngi UDP mu ne ñii dañu war a dellusi si parti NCP bi foo xam ne foofu la gars yi faaxee ko. foofu mooy seen parti euh, kii bu mu ndaw wàlli fekk NCP ñu ngi celebrate euh, seen 48 euh, years Mr Kinte wax na ne mu ne parti NCP su nooroon ko xamee Sirif Mustapha Diba moo ko creatoon the 7th of September 1975 Mr Kinte wax na ne mu ne jamono bu toll nii ñoom benn challenge lañ am moo nekk nu ñoo mun a jëlee seen supporter NP NCP yi from other parties yi ñu delloo si leen si parti bi. Euh, finally euh, beneen news bu ñu am gis nañ ne food safety euh, food safety maanaam ñoom ñoo control affaire yi food yi nga xam ne nit yi dañ koo lekk ñoom ñoo wax ne ñu ne. Euh, lii nekk na concern si ñoom parce que gis nañ ne nit yi nuñ leen dee joojee ak lu ñu dee wax si ñoom euh, boo gisee ñu ko wax dañ xamut ñoom seen liggéey ak lan lan lan la euh, ban important la am Mr Ba Mr Ba bu mu doo wax li moo nekk DG bi directeur général bi moom wax na ne mu ne Euh, lii boo gisee nit yi di wax tur bu ñaaw si ñoom dañ xamut ñoom seen liggéey naka la mel wax na tamit ne euh, journaliste yi euh, dinañ seet wee boo xam ne dañoo bëgg di liggéey ak ñoom parce que food safety loolu ñëpp la soxal journaliste yi seen bopp sa dafa war a nekk gaay seen concern parce que food safety Euh, nekk na loo xam ne euh, su su su amee problème rek euh, problème bu bari dina am feebar yu gara gara gara mun na see am so nit yi ñuy wax yu bon si ñoom dañ xamul ñoom seen liggéey lii lañ amoon tey waaye si jàngate buñ am rek moo nekk ne gis nañ ne wax yaa ngi bari gis nañ NCP ñoom tamit ñu ngi oo seen mi seen parti you Euh, supporter yi gis nañ tamit ne food safety food safety dinaa si wax tuuti parce que euh, man euh, xam naa si dara because dem naa Gambia hotel school jàng te gis naa food safety naka la mel man leena rek mooy nekk suma problème si ñoom seen biir because ñoom seen problème moo nekk ne su ñoo dem visit hotel si dafa am ñu dée nekk seen biir euh, ñoo xam ne dañoo inform hotel yi nga gis ne ku nekk di clean te fekk place boobu noonu moo gën tilim so mm, pour wax leen dégga dégga dégga rek corruption bu rëy a rëy a rëy mu ngi ñoom tamit seen biir foofu noonu so euh, parce que boobu moom man suma boobu maa ko witness nekk na euh, sous chef place yu bare bare bare so lii lii lañ am tey si news bi di la wax ne rek ñu